bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi ñoo ngi fii ci école Al Falah tey damay sant yàlla bu baax a baax di julli lu bari ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi tey de contentement rek ak mbégte ak xol bu sedd ak xol bu dal moom lañu ñu am tey ndax xam ngeen ne école Alfala école primaire la moyen ak secondaire jafe-jafe amoon nañu ko fii lu bare nag fa tabaarakallah mais yàlla mi nga xamante ne mooy borom kun fa yakkoon yàlla jàppale nañu tey jafe-jafe yooyu yëpp nag yàlla am na lu mu ci wàññi ndaxte jaarale ko ci loxo ki nga xamante ne mooy doomu Tambacounda ku baax ku am solo. lu ñuy wax alxaji Sidiki Kaba kon ni mu ko daan defee ci yeneen écoles yi ak ni mu daan defee ci ndimbal yi mu daan joxee ci jumaa yi ak ci jàkka yi ndimbal yi mooy li muy def jamono ju nekk ak ci cimetière yi tey nag tuuru Alfala moo egg si tey tey dafa ñëw ci Alfala indi ñu liggéey bu am solo nar ko fi amal nar ko fi def ñu bàyyi ko ak yàlla yàlla na ko yàlla fay liggéey bi sore woon na lool ndax ay bonne volonté ak jullit ñi ñoo doon dajale seen dërëm dugal ko ci jumaa ja ba mu toll fu mu toll tey waaye yàlla baax na si Sëriñ Kaba ñëw na daal di jël liggéey bi ci seen loxo gannaaw bi mu leen nuyoo di leen sant seen sant di leen gërëm lépp li des ci liggéey jumaa ji moom dana ko matal dana ko def karo yi ak cat yëpp na ko na ko eggale incha allah mu ne ma Issa du yem ci jumaa ji danaa dugal sama loxo ci école Alfala tabaxal leen ñaari classe may ko yàlla ak yonentam may ko élèves yi Issa ma jagleel la ko ndax yaa ma ko ñaanoon kon tey bu nu fi taxawee dañuy sant yàlla sant Sidiki Kaba di ko gën a ñaanal yàlla di ko jox yàlla yàlla na ko yàlla aar dimbale ko jàppale ko ci biir ak ci biti Sidiki Kaba lu muy liggéey ci Tambacounda gàcce gaalama Sidiki jumaa yi morgue yi jàkka yi cimetière yi œuvre sociale yi yu bare Sidiki Kaba loo xam mu ngi fu ne wax dëgg yàlla alfala gërëm na ko alfala sant na Sidiki Kaba alfala ñaanal na Sidiki Kaba yéen Tamba TV tamit nag ñu sant leen ñu gërëm leen ci seen disponibilité sànq ba tey yéen a ngi toog ak ñun yéen a ngi nekk fii ak liggéeykat yi kon nag ñu ngi leen jaajëfal yal na yàlla barkeel Tamba TV di leen sant di leen gërëm.